إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي ودنيتي فيها الحمد لله رب العالمين mbokki jullit yi noo ngi màggal allah taala wa tabaarak di ko gërëm di ko bàkk di ñaan mu jéggal ñu suñuy njuumteek teeg suñuy rëcc-rëcc te boole ñu ci waa àjjana lu ko yomb la yàlla nañ ko yàlla defal noo ngi julli tey sëlmal ci ar rasulu muhammad sallallahu alayhi wa alihi mbokk jullit yi sunu xutba tey mi ngi ñëw ci benn tomb boo xam ni daanaka moo yore suñu dund muy ana wa shariku hayaati muy man ak ki ma dund lu muy tekki mooy nit ak soxnaam walla nit ak boroom këram kon daanaka mawduu bi day dugg ci néegu sëy te léeg-léeg jafe-jafe yi mën a dem ba jéggi dayo mbokk jullit yi sëy day xéewal gu rëy la bu bàyyi koo ci borom bi taala ndax ci biir sëy la góor di dale am jàmm ci la jigéen di dalee am jàmm su ko mbëggeel ak yërmande lale ci biir sëy la góor di yëgee dund bu neex ci la jigéen di yëgee dund bu neex ndax góorkat bu amee soxna am ay doom daanaka li mu doon ut ci àddina am na trois tiers bi waaye jigéen tamit la même mbokk yi sëy su tabaxoo ci ragal yàlla ak gëm yàlla bu boobaa sëy googu sant yàlla rekk moo cay war ndax day fekk ku góor ki gëm na yàlla te xam ni yàlla mi ngi koy fuuglu mu sàmm li yàlla bëgg ak li yàlla bañ jigéen ji it ci biir sëy bi mu jàpp ne yàllaa ko santaane sàmm li ko yàlla sant xam ni yàlla nga koy fooglu kon sëy boobu bu tabaxoo ci ragal yàlla ñaar ñi ko séq ragal yàlla góor gi am jikko ju rafet jigéen ji am diine kon dafa mel ni benn kër goo xam ne ñaari birig yuy taqaloo la ndax jigéen ji su amee diine góor gi am jikko bu rafet kenn ku ne day mottali morom ma jigéen ji day mottali borom këram waaye góor gi day mottali soxnaam kon kenn ku nekk am na wàll woo war a taxawee ci sëy ba ñu jàpp ni sëy boobu nag islaam moo koy coaché lépp luñ ciy def ñu xool ci boroom bi daganal sëy bi balañ cee def dara ku góor ki na xool yàlla ci sëy bi ku jigéen ki na xool yàlla ci sëy bi su boobaa bu jafe-jafe amee mënta ñàkk waaye jafe-jafe boobu du àgg ci indi fitna walla indi musiba ndax jigéen ji yiw bu nekkee ci biir kër mooy jigéen joo xam ni ñeenti mbir yi day aju ci moom mooy jigéen joo xam ni soo ko digalee mu def soo ko xoolee kontaan soo ko waatalee wàcc soo tukkee mu sàmm boppam muy ñenti critères yi mooy daje ci jigéen ñu ne kii jigéen ju ragal yàlla la mooy jigéen joo xam ni su ko jëkkëram santee mu def ñaareel bi jigéen joo xam ni su ko jëkkëram xoolee kontaan lu tax muy kontaan mooy lépp luy attirer borom këram da koy def ñetteel bi jëkkëram bu ko waatalee wàcc mooy jëkkëram dënn yëg ni soxna si mu am du ci am ñaaw njort du ci am ñaaw njort benn yoon mën naa dem fu ko neex waaye jàpp na ni am na jigéen ju am maturité joo xamante ni dëgg dëgg dëgg toolam bi beneen bëy du ko jéggi loolu nag wolof la xaw ma ñu bari ci ndaw ñi nañ ko xam walla déet ñeenteel bi mooy jigéen joo xam ni day sàmm alalu borom këram sàmm njabootam loolu rek moo loolu dong moo tënk jigéen ju baax xool ko kontaan sant ko mu def waatal ko wàcc mu sàmmal la sa alal bañ la ko yàppal lii góor gu ko am yëgal ni am nga dund bu neex ba pare xadis boobu nag maanaa bi lañuy ñuy jël donte Cheikh Albani tadrifal na ko waaye mbokk yi bu ñu seetloo société bi ak jafe-jafe yu ñuy dund tey dañuy gis ni sëy yu bari yëngu na li tax may wax wax lii yàlla daf ñoo natt fi ñuy nekk waxtu wu nekk ay cas daf ñuy dikkal léeg góor ñëw wax ci jabaram jote léeg jigéen ñëw noonu yàggul dara benn couple toog na ak ñoom 16 ba 18 quarante 45 maa leen mujj ni sonn na ci ñaar ñoo xamante ni mënatuñoo déggante ñoom ñaar fu ne dem nañ fa sottiwul jëkkër ji ne ko nañ dem ci Oustaz Oumar Sall ñu ànd ñëw moom ak moom ak famem ñu ñëw ñu toog ñuy waxtaan mais mënuñoo trouver solution lan moo tax parce que dafa dem ba jéggi dayoo mbokk yi lii indi jéggi dayoo ci sëy mooy jigéen ju comprendrewul diine ak góor gu comprendrewul diine mbokk yi léeg-léeg sëy dana dem ba kenn ci ñoom ñaar du bëgg a gis morom jigéen dina àgg foo xam ni gis butitam moo koy gënal gis jëkkëram góor dina àgg foo xam ni gis butitam moo koy gënal gis jabaram ñaar yi am ñoom ñaar ñu bëgg a nekk ci biir kër est-ce que jàmm dina am non jàmm munta am parce que jigéen bi bu demee ba bëggatul gis jëkkëram mooy mënatu ñoo bokk kër mënatu ñoo bokk néeg góor gi mënatu koo sant mu def mënatu koo tere mu bàyyi su góor gi demee ba gis jabaram moo gis butitama yem su boobaa jàppatul ni jabaram moo fi nekk day génn lu ko neex def bu ragalul yàlla étape boobu nag ay jullit waruñ fa àgg ndax góor dafa waroon bu amee fitna daw dem këram noppalu jigéen bu jaaxlee toog ci këram noppalu waaye góor goo xam ne bu amee fitna ca biti la jëm kon la taxoon ñu takkaloo ko jabar newut nekkul jigéen joo xam ne bu fitna amee génn lay bëgg kon la taxoon ñu boole leen ñoom ñaar amatul ndax bu fekkee góor gi dese na diine dana dese orma bu tax mu mën a téye ndaw si ba ndaw si am fu mu mën a dalee ba xelam dikk su fitna amee góor gi dana xam ni problème moo am waaye fii kat mooy sama dalukaay mu mën faa ñëw mbokk yi islaam day daf ñoo sant ñu taxawal sëy ci ragal yàlla mbëggeel cofeel borom bi nee na wa aachiruhunna bil maaruf borom bi nee na yor leen jigéen ñi ci njekk waaye jigéen ñi it nag ñoom it nañu nangu ñu yore leen ci njekk ñoom it ñu def njekk ndax aaya bi ñaar ñépp ñoo ko bokk borom bi dem na ba naan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al allahu fihi xayran kasira léeg-léeg nga bañ sa jabar fekk moo gën ci yow moo gën ci yow léeg-léeg nga bañ sa jëkkër fekk moo gën ci yow comme xamoo ko moom xamu ko kon ku nekk ci yéen ñaar war naa sóor yàlla ci biir sëy bi benn jigéen a ngi nii dafa mel ni day bind benn roman ci dundam ndaw fii li muy wax mooy sama borom kër ñaari kanam la yor zawji zul wajhayn sama borom kër ñaari kanam la yore xam nga jigéen bu àggee ci gis ni borom këram ñaari kanam la yore mooy respe mënatul dox ci diggante bi maanaam mu ne sama borom kër kanam bi muy wan samay mbokk ak samay dëkkandoo bokkul ak kanam bi ma bi ma wan man samay mbokk samay dëkkandoo ñépp nee nañu ku baax la ku ragal yàlla la koñ bi di ko tagg ñépp di ko tagg te loolu du dëgg ci biir kër gi allahu akbar te lii bari na jigéen ñu koy jooy mooy góor ñoo xamante ni sa famille lañuy ñuy sëyal mais sëyuñu ak yow loolu lu bari bi am la te xam nga dul waj xay ni li tax mu doy waar mooy borom ñaari kanam borom ñaari kanam nekk xarum mbedd gaynde kër loolu góor warul mel noonu sa mbaax ki ko war a njëkk yëg war koo njëkk manifeste sa soxna la war a doon ndax mooy sa shariku xayaat moom mooy sa sociétaire ci dund bi ngay dund ci biir néeg bi ci biir kër gi moo ko yow ñoo fi nekk kon moom lu nit ñi gis ci yow warul gis contraire bi waaye nga yore ñaari jikko ku la seen nga tàllal loxo wàcc suufe nekk ku baax boo duggee ci biir kër gi nekk koo xamante ni dangay ngay fitnaal soxna si kon ña ca biti buñ ñee ku baax la moom soxna si mu ne ku bon la su yàggee soxna say am problème lan moo tax soxna say am problème mooy dañuy jàpp ni soxna si du sëykat loolu naqar lay doon bu soxna si denc ci xolam góor bu nekk na ko bàyyi xel loolu góor bu nekk na ko bàyyi xel ma jiitu ci ak keneen mu ne sama jëkkër dafa nooy ci kanamu nit ñi sëy yi yàqu ci koñ bi moo koy tabax di ko defar te moom biir sëyam mënu koo defar kooku kon yaa problème bu fekkee ku jaaxle ñëw wax ko bu waxee sa jabar kër gi dal bu waxee lépp dal te moom këram mënul dal kon loolu loolu c'est très grave ana nan lay def ba kër yële baax mu bàyyi këram waaw mbokk yi booy bale mbalit da ngaa war a génn ci kër gi wala dangay bale dugal ci kër gi kon kii mooy góor goo xam ne day jëlee mbalit ci biti di ko xëpp ci këram di dugg ci kër jàmbur di génn seen mbalit di xëpp ci biti kon góor googu it war naa taxaw xoolaat boppam mu ne sama jëkkër ku naqari deret la ku dëgër la te pourtant ci yi dañoo gis ni ku baax la waaye man mënuma nekk ak moom ndax dafa naqari deret lool lu ma wax mu xëpp ci kaani lu ma def mu xëpp ci kaani sama digganteeg moom day mel ni bugguma gis ma nit dem naa ba àgg ci bëgguma koo gis lu tax sama jëkkër daf may xatal sama jëkkër dafa ma jàppee benn animal ci biir kër gi benn animal rek la ma jàppee ci biir kër gi mu mel ni man yeyowuma dund man yeyowuma bànneex man yeyowuma jàmm su nekkee ci biti na muy mel lépp bu duggee ci kër gi beneen jikkoo lay indi ba man dootuma am jàmm mu ne sama jëkkër daf may saaga wallahi saaga bu ñaaw bi mu nettalee benn façon saaga bi dama tiit loolu jàmbur sax kenn waru ko koo saaga waxantuma la nga di ko saaga ak koo xamante ni yaa ngi yore doomam nee na sama jëkkër daf may toroxal léeg-léeg sax day àgg ci dóor ma te samay mbokk mënuma leen a wax lu ñu gëm ci moom ne sama jëkkër bëggul lu baax ne ko diir waay wala non lépp lu jigéen di def pour bégloo jëkkëram dama koy def mais day mel ni benn xeer la jàkkaar ne sama jëkkër bu agsee ci kër gi man ak samay ñetti doom su fi nekkul ci jàmm lañuy nekk damay toog ci kër gi xale yi dàqante ci picc mais bu nee tëll ñëpp ne nemm maa ci jiitu samay doom ñëpp ñëw sukk sama kanam toog kenn dootul yëngu ku yëngu mu yuuxu ku ne nii mu yuuxu ku ne nii mu dal ku ne nii mu dóor xale yi dafa mel ni génnam lañu yàkkamti yàkkamte mais duggam yàkkamte ko mbokk yi ndax jullit bu góor war naa mel nii say doom ay xale yu ndaw di la gis di tiit loolu góor gu mel noonu yëgal ni mbaax nekkul ci yow mbaax newul ci yow parce que say doom dañoo war a yàkkamti nga wàcc ñu ànd ak yow yéeg sa kaw cëppi-cëppi sa kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam misaal bu rëy la joxe naa ci joxe ñaari misaal benn bi génn na yore doom yore kenn ci ay sëtam mu am ku ñëw di wax ak moom yonent bi fóon xale bi góos fóon ko droit yëkkati tëb tëbal waaye ji yonent bi ah yow da ngay fóon xale <laughs> yonent bi lan moo tax du ñu fóon xale xoola ma kii laaj laaj bi pour moom jàpp na ni doom kenn waru ko fóon kenn waru ko yëkkati yonent bi ni ko déedéet dañuy woon xale dañ koy ñaareelu programme bi yonent bi julli na tàkkusaan sujjóot bi yàgg lool kenn ci saxaaba yi mu ne damaa dem ba mënatum ma yëkkati sama bopp di yëndu ndax lu ndax da am lu xew wala kon dalay won ni sujjóot bi jéggi na dayoo ne bi ñu sëlmalee ñu ne yonent bi waaw lan moo xew sujjóot bi daa yàgg lool yonent bi ne sama sët bi moo raam yéeg sama kaw di fo ma bañ yëkkati ko wala mu kii ma bàyyi ko ba xolam sedd ba mu wàcc ma doo ko siggi allahu akbar allahu akbar ku nekk ci ñun war naa jël jikko boobu ci ay doomam say doom ñeme la du tee nga yar leen say doom ñeme la du tee nga defar leen waaye bu àggee ci boo booy agsi rek ñu ne paa ngi ñëw baa ngi ñëw xale yi ne tekk daw arrière ñii ne mugg toog mel ni léegi kër gi champ de guerre la non boobu jikko boobu baaxul mu ne sama borom kër daf may tere boppam daf may tere boppam te li ma ci gën a metti day topp yeneen jigéen baat boobu nag xam nga ku nekk ci ñun mën na xam fi muy yem day topp yeneen jigéen mooy ñu baal ma sama jëkkër day doxaan ne ma maa ngi preuve yi ma ne ko waxal yoon gis nit booy wax ci ginnaawam da ngay wax lu dëggu mu ne li ko gën a metti mooy ñamuy séqal wala ñamuy woo di wax ak ñoom di leen labat ñu ñooy woo soxna si di ko wax naan ko yow di sa jëkkër xanaa daa am problème yow sa jëkkër amul lu ko dal koñ bi ko am problème moo koy réglé te moo yow ni nga mel nangam nangam nangam wax a wax nee na oustaz sama jëkkër xamul wax bu neex sama jëkkër nu ko buy joxe dépense nu ko neex la ma koy joxe day jékki sànni ma ko léeg mu teg ci lal bi léeg mu teg ci fauteuil bi dem du sax ne ma am sa dépense mu teg ma ah ne ma oustaz deux ans ferme mi ngi nii sama jëkkër loxoom ak sama loxo xaalis doxul suñu diggante xaw ma dégg ngeen wax jooju wala déet loxoom ak sama loxo maanaam sama loxo ci suuf loxoom ci kaw mu jox ma ma téye nee na deux ngi nii amul sama diggante ak sama jëkkër moom daal buy joxee da koy teg ci canapé bi wala mu teg ko ci fële teg fële dem yoonam moom lay nekk subhanallah li ci gën a metti mooy maa ngi nii dama am ñaari feebar ñaari feebar ñoo ma te bi ci gën a garaaw mooy feebar yi amul benn bu mu ma ci jox ordonnance wala mu toppatoo ma man maay dugg dugg samay mbokk dimdu bi jiitu ci samay feebar mooy dama ame tumeur ci sama yuur te xam nga loolu feebar bu bon faleem ay cancer moo koy def dem ba mu amee tumeur ñaareel bi maa ngi nii dama am goitre jooy durée bu yàgg ndeysaan mbokk yi paragraphe bi rek bu ñu ko jëloon ñu def ci jàngat dinañu gis ni ñaata feebar mooy sosoo ci biir néegu sëy yii sabab góor a koy indi yii sabab jigéen koy indi te li koy indi yépp mooy suul isra mooy sëy bu ñaaw téye sa jabar téyin bi ñaaw mën na dem ba ndaw si boppam mën naa ubu day feebaru bopp bu ubu boroom di tiit fu mu toll dootul ànd ak sagoom mën na dem ba àgg ci sax mu dof li gën a grave nag mooy bu àggee ca muntaha mbir ya su ngëm yàlla amul mën naa yóbbu nit ci xaru ñaata jigéen ñoo xaru kenn ku séenawul xaru su ngeen xoolee ci ñi gëmul yàlla wala sax ñi seen ngëm yàlla oyof danga ci gis ñoo xamante ni seen jëkkër xatal na leen ci sëy fi ñu waroon a dem pour ñu dalal leen ñoo ñu contourner leen amatuñ fu ñu jëm ñu des rek ñu nag leen ci benn ruq bu yàggee rek dañuy pete dan mooy pete mooy saa boo amee problème ak sa kër sa jëkkër daw ci say famille sa famille ne la dellul dellul léegi yow fi nga waroon daw pour ñu apaiser la wàññi la wàcce la dalal la ñooñu it dañ lay contrer mu mel ni benn teng si buy dal ci miir di dil si di demaat di dee si mbokk yi muus boo ko najoon ci néeg bu ko rey coowoy bëri waaye doo ko rey lan moo tax parce que ndaw si dañ ko xatal a xatal ba amatul fu mu jëm parce que koñ bi jàpp nañ ñu jëkkëram mu fi gën fameem jàpp nañ ñu jëkkëram moo fi gën te moom mi ngi dund jahannam kenn mënu koo gëm léegi nan lay def day wëlbati ko toog di jooy di naqarlu charge yooyu dina ko yóbbu ci yu bona bon bona bon bokk na ci yi charge yi indi mooy mën naa dem ba ndaw si jikkoom bon te billaahi alladi laa ilaha gayruhu wax na ma li nee na ma oustaz fi mu ne maa gën a bon kuy bon ma ne ko subhanallah tuubal loolu kenn du ko wax mu ne ma billaahi oustaz léegi damaa bon xoola ma baat bu mel nii loolu mën na cee juddoo beneen bi mën naa soppi mbëggeel def ko mbañeel ndax ndaw si xam naa ni tey ku ko tëral jëkkër mu rendi ko te amul woon xool boobu lan moo tax parce que daf koo jëkkëram da koo naaj rek nag ko ci miir bi rek bàyyiwu ko te su génnee fu mu yuuxoo du am ku ko dalal su boobaa dafay pete beneen bi day indi nufra day indi daw waaye bi gën a grave mooy dootoo mun a muñal sa borom kër parce que daf la yóbbu ci étape boo xamante ni étape bu doy waar la ma ko waaw lii nga wax nii lépp est-ce que ragal nga yàlla ci wax ci mu waatal ma ndaw si dafay génn ay feuille di ma jox di bind daanaka nee na ma oustaz lii bu ma ci paree bu bu ma ko bindoon génne ko war na mën a nekk livre lu baree bari mu génn ci jox ma avec génne ay preuve nag yoo xamante ni ci téléphone am ci ay kàddu yu jëkkëram di wax ak jigéen ay jigéen di ko ko delloo kenn ki mu dégg sax muy wax ni carrément yow su jëkkër ragalul yàlla man ni ma mel ak yow nangam nangam nangam nangam nangam maanaam yu mel noonu mbokk yi saa bu xësee ba am ci sëy mooy bi gën a grave nag te góor ñu bari mu leen di dal mooy ndaw si bëgg a tas nga ni doo ko bàyyi kooku mooy li gën a bon ci néegu sëy li gën a bon ci néegu sëy góor ñépp nañu ko moytu bis boo demee ba sa soxna doyal waay waay goreel ba ko mais nga di ko xatal continuer di def li la neex looloo gën a bon mun na indi xaru mën na indi def lu muy rëccu mën na indi def lu mu bëgg a def mën na koo dugal sax ci loo xamante ni ku ne xam na ne lii du woon jikkoom mais lan moo ko indi venger wu parce que amul mooy mais góor gu diiñ gu ragal yàlla doo àgg sax sa jabar ji la ñaan baat ndax bu demee ba ñaan baat xool na xool mënatul foofu nag li jaadu yow góor gi nga ragal yàlla nag nga ragal yàlla nga xoolaat lan moo tax mu lay ñaan baat su dee jikko yow mën a dindi nga dindi ko su dee yow mënta dindi nga may ko baat mu dem libre na ci ñaan baat ma ñëw nag ci juróomi mbir a ngi nii ba juróom benn góor ñi man maa ci jiitu ku nekk ñun na ko bàyyi xel ñun suñu société suñu sëy diine mi ngi ci aada mi ngi ci am na ci lu rafet parce que aada bi mooy sëy da ngay sëy ba dee lu rafet la waaye ki yàlla yónni ay sëy tas na ay sëy moom yonent bi tas na ay sëy waaw wala déet yonent bi bu tasee sëy xam nga ne kon sëy lu mën a tas la islaam bañul sëy tas bañul jigéen ñaan baat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bépp jigéen bu ñaan baat te amul cause bu ñor malaaka yi rëbb nañ la yàlla bugg ko léegi nag bu ñu jëlee bii xadis ñu jàpp ni jigéen warul ñaan baat wala bu ñaanee baat duñ ko may baat mooy dañ ko bëgg a privé ay àqam am na àq yu mu am ci dundam moo ko moom islaam moo ko ko jox bokk na ci juróomi mbir ba juróom benn mbir bu ci dal jigéen am na droit ñaan baat bi ci jiitu mooy su boroom këram mënta taxaw ci wareef yi ko war ci moom ndaw si lu mel ni dundal ko lu mel ni dëkkal ko walla dëkkoo ko su ko borom këram mënul ndaw si am na droit taxaw ne may ma baat kenn du ko ci xas lu dagan la islaam moo ko ko may kon buñ ko ko xañ ñetteel bi mooy su góor gi demee bay toroxal jigéen ji waxtu wu nekk di dóor di xas di saaga ma ni même góor bu àggee ci way wayjuru jabaram bu góor walla bu jigéen ndaw si am na droit ne ko may ma baat ndax nag ki la jural soxna nga yore ko nga bëgg faa jéggi soxna si bëgg séq ak ndeyam wala baayam yow matatoo jëkkër su fekkee mer moo tax mu def ko ndaw si dañ koy tànnloo su ko neexee mu muñ te nag wa man yusbir wa man yatasabbar yusbirullah su muñee baale lu baax la wa in borom bi ne su ngeen jéggalee jéllale lu baax la waaye bu ci ndaw si ñaanee baat lu wér la toog daggal sa jabar saaga ndey woo xamante ni dara daara dara gënu ko yiis ci aw saaga boroom fu mu toll di ko xalaat xolam di bon te du gis mbukk loo ko defal lu tax mu mën koo muñee saaga boobu du gis loo ko defal mu mën koo muñee ñàkk dépense boobu du gis loo ko defal mu mën koo muñee ñàkk dëkkoo boobu su boobaa yoon may na ko mu ñaan baat ñetteel bi bokk na ci mooy islaam may na ndaw si mu ñaan baat su loroo ci lii maanaam jëkkëram tukki ñëwul lu ëpp juróom benn weer rek su ndaw si mënatul te mu jàpp ni bu naree toog di xaar mën na koo dugal ci mooy su boobaa yoon may na ko mu ñaan baat te su boobaa góor gi bu amul moyen bu mu ñëwee wala mu naxanteeg moom daf ko war a may baat waaye du ko ne da nga fay toog xaar ma nekk sama gardien nekk ca lu la neex bàyyi ko moom mu toog déedéet loolu islaam joxu ko benn góor góor ñu bari nag ñu baal ma dafa am loo xamante ne daanaka du neex a wax loolu la islaam wax kon dañuy xam ni lii mooy li ñu islaam jàngal euh, ñeenteel bi góor gu ñu tëj kaso mu yore jox soxnaam ñu tëj ko kaso diire kaso bi nekk diire boo xamante ne perpétuité la wala mu nekk diire boo xamante ne bu jéggi dayo la ndaw si su yégee ni mënta xaar borom këram kooku kenn du ko ni jaam nga kenn du ko xas léeg-léegi ñoo kii dafa goree di nekk ak borom kër ba ñu kii ko nangam nangam déedéet foofu kenn du ko xooloon dafay dil si wax ci ndaw si mooy xool ngor ngor lim ko may mooy mu xaar de wax dëgg yàlla loolu la ko ngor may ngor lim ko may mooy nekk naag moom ba fitna am waaye bu fekkee ni moom xam na ni buy xaar ngor ba mu dugal ko ci mooy yàlla muy xaar mbaax ba mu dugal ko ci mooy yàlla su boobaa bàkkaaram lay doon kon su boobaa dañuy dàkkoon ne ah nan ko may baat lii kat la yàlla dogal góor gi mën na koo may baat incha allah rab rabbi bu fekkee ni nag tànn na ni day toog uuf njabootam uuf njabootu borom këram jaamu yàlla ci te jaamu yàlla bu rëy la yow jigéen nga nekk ak sa borom kër nattu ñëw dal ci kawam ñu tëj ko ci kaso bi sa grandeur dëgg mooy nga toog mooy nga gérer mooy nga muñ nga xam ni lii ko dal mën na laa dal mën na dal sa papa mën na dal sa famille mën na dal ku ne kon bu mu am rek nga jaay goree yi xam nga islaam dalay wax ni lii lu mën a nekk la waaye nag du tee danañ la wax naa ah, li bu la neexee day nga def ne waaw nga def ne juróomeel bi bokk na ci <coughs> bu fekkee góor gi dafa amee feebar bu nu xam ni feebar bi wéram moom mënul nekk par exemple góor gi mënul am doom dem na hôpital xool nañ ni kii ay sperme lépp a disparaître amatul benn globule bu fi mën a tax ba mu tax mu am doom ndaw si su gisee ni moom bëgg na doom su ko neex mu naa ah, mënuñu ànd mënuñu dem comme góor gi it mën na loolu comme góor gi mën na loolu waaye xam nga loolu ci ki muy dellu mooy ki jiital doom ci sëyam mais ki jàpp ni sëy doom bonus la ci yàllaa ciy dimbal indi su ko indil nga toog muñ kooku jigéen ju am grandeur la waaye bu taxawee nag ñaan baat nag ni boroom kër gi wax dëgg yàlla comme mënul am doom wala boroom kër gi la ko war ci néeg bi munu ko la ko war ci néeg bi munu ko foofu amatul ay grandeur ak xaar loolu moom amatul grandeur grandeur bi kay ñu ngi xaar ci dana am doom wala du am doom loolu moom teewul mu am ngóoraam waaye koo xamante ni da ngóora moom dara newatu fi wala la fi war a nekk manqué na te dem na koo faj munu koo faj su boobaa ndaw si am na droit ne ah la ma fiy kat bokk na ci sëy te loolu mënatoo ko dama bëgg nga may ma baat gis nga loolu bépp góor gu am xel bu la ko sa jabar waxee war nga mën a yeewu xam ne du yow du moom mais yàlla moo dogalee nii nga bàyyi ko te nga faju incha allah rabbi juróom-benneel bi bokk na ci jëkkër ju saay-saay ak nu mu mënti mel am nga droit ñaan baat jëkkër yoo xam day màndi jëkkër joo xam day fooye julli farata yi faalewu ci dara jëkkër joo xam ne day topp jigéen ñi ñaari baat nga bettu ko jigéen ñetti baat nga bekk muy téléphone di def yoo xamante ni xam nga ne lii daganul su boobaa ndaw si dañ koy tànnaloo mooy xool su mënee muñ mu toog su mënul mu ne ko may ma baat juróom-ñaareel bi mooy ndaw si bu demee ba mbañeel dikk nag ba nga xam ni yaag sa jëkkër mënatu leen bokk kër gi waxantuma la ak néeg bi su boobaa tas lu jaadu la ndax lu ko moy yii la mën a indi mën na indi posone mën na indi rayante mën na indi tàngal ndox xëpp lu ne la mën a indi góor ñi nañ ci góor góorlu jigéen ñi góor góorgóorlu ci insha allah nii ñu ko defee nii nga xamante ne daanaka problème mu jigéen ñi kese kese kese la ñu yëkkati bu soobee yàlla insha allah xutba yi ji ñëw danañ ci indi yi nga xamante ne laa même chose noonu lay def góor ñi allahumma ahdina fi man hadayt wa aafina fi man aafayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma aatayt waqina bi rahmatika charra ma qadayt fa innaka taqdi wala yuqda alayk innahu la yadillu man waalayt wala yaizzu man aadayt tabarakta rabbana wa taalayt قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور